عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا شيخ أحمد التجاني الشريف ورد الله التام عن خليفتهما صاحب الفيدة التجانية مولانا شيخ إبراهيم ياس أما بعد نحييكم جميعاً ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مكي جلدي غناو سنت يالا جولي تشونتي بي صلى الله عليه وسلم دي نيان يالا مو واتيه يرماندم سي خليفه رسول الله مو مولانا شيخ احمد التجاني ديكو نيانيت مو واتيه يرماندم ki nga xam ne moo leen uutu ñoom ñaar di borom faydatu tijaaniya muy suñu sëriñ Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu taala anhu gannaaw loolu ñu ngi nuyu ñëpp ak fu ñu mën a bàyyeekoo mbokki jullit yi mbokk taalibe yi ñu bëgg a dugg nag ci liggéey bi donte am na tardement nag moo tax taqdim bi dama koy def taqdiman xasiran gannaaw buñ dalalee gan ñi boroom xam-xami kilifa yi fi toog mu xaddam yeeg yi ñoom ñëpp dajee nañu fii ci mbaar mii pour ñu dundal euh, ngoon gi ci tudd yàlla ak jàngat ci diina euh, suñu mbokk nag suñu maam muy oustaz Ibrahim Thiam al bi Baye Koddu mooy ki nga xam ne moo ñu fas yéeneel incha allahu defar ñu tey conférence bi nga xam ne ñu ngi ko doon taataan boobu ba léegi onwaan bi nag mooy fadlu salaatil jumuati ngëneelal julli juma incha allahu bu duggee ci waxtaanam da ngeen dégg lu baree bari ci ngëneelal julli juma suñu mam la nak suñu oustaz la buñ koy taq nak dañ koy teunk parce que doyna ne borom xam-xam la alimul alama la na fi la jange ci Sénégal ci madinatu Cheikh Ibrahim li nit ñi wara jàng fi bim paré fi mu ne lolu doyul mu tukki dem Misra al Qahira fofu la def ay at ba génnee fa bi shahadati licence mu génnee fa indiwaale diplôme bu ñuy wax licence kooku nag am na lu ma xam ci moom tuuti ci ay conférence ndax defal na ma suma dëkk conférence muy borom xam-xam muy ko fasaaha koo xam ne incha allah bu waxee da ngeen gis ne borom xam-xam la nit ku fasaax la bokkoon na ci aadaay Maolana Cheikh Ibrahim Niass jotaay yu mel nii da koy ubbee ay ay alquran kon nag dañuy jox Cheikh mohammed Nazir ibnu Cheikh Ibrahim fay mu ubbil ñu jotaay bi ci ay alquran su paree mubasharatan ñu jox conférencier bi mu commencé liggéeyam Cheikh mohammed Nazir bismillahi لك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث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 وهي في حق الفقراء والمساكين بمنزلة حج بيت الله الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أجمع والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مبقي نتيو برب سلبي مي غور مي جيجين مي مك مي نداو ين نيب نيو نيو الاسلام di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla tabaraka wa taala mi ñu kattanal bañ fekkee bés bi ànd ak tal ak wér di ko ñaan kàttan loolu wéy ñu mën a joxe liggéey bi ñu sant ñu mooy laay wante biir ak mbokk yi fi teew ci xam-xam bu ñu yaakaar ne dana leen amal njëriñ ci seen wàllu diina ñu sant ñëpp nag ci seen teewaay di sant boroom jotaay bi di Cheikh Ibrahima Faye ak ñi koy jàppale ci liggéey bi yan na ko yàlla may kattan lu sax yombalal ko tawfiix ak taysir najaax ci mission bi muy gàddu di ko tasaare ñi fi teew ñëpp yal na leen yàlla may jàmm ak salaam may leen ñu dégg liñ fi jëriñoo ñun ñëpp ñu nekk fi ci jàmm delluwaat fañ jóge woon ci jàmm ànd ak yokkute zahiran wa batinan suñu jotaayu tey bi nag ñu ngi bëgg a waxtaan ci ajjuma bésëb ajjuma am solo gi mu am solo ak julli giñ ci def mu tudd julli ajjuma wala julli juma comme niñ koy waxe julli juma amna solo lol farata la ci kep ko xamne nga mat mukallaf am xel nga wer wer gula may nga déplacer sa kër dem ca barab ba ñuy jullee nga xam ne amuloo benn ngant nga nekk na ku dëkk ca barab ba ñuy jullee doo ab tukkikat kooku la ajjuma war ci moom mu julli ko ca jumaa ja ànd ak mbooloo may julli jumaa julli jumaa moo gën ci xeeti julli yi am yépp lu tax ndax bésab ajjuma lañ koy julli te bésab ajjuma mooy sangi bés yi loolu moo tax julli gi ñu ciy julli moo gën julli yépp ci bésab ajjuma ci la yàlla bind aadama alayhi salaam nga xam ne moom meññi doomu aadama yépp ci bésab ajjuma la ko yàlla dugal aljana ci bésab ajjuma la ko yàlla génnee aljana wàcce ci kaw suuf si bésab ajuma yi nag ci la bés penc di am bésab ajuma am na ci waxtu boo xam ne ku ko tombeet loo ñaan yàlla tam mu nekk lu dagan yàlla may la ko kon ajuma mooy sangi bés yi julli ajuma nag farata la ci ab jullit fardu ayni la mooy farata boo xam ne dafa ràññeeku ci yow kenn mënu la ci remplacer xam nga farata yi ñaari xaaj la fardu kifaaya ak fardu ayn fardu ayn buñ demoon ci suñu li ñuy jëfandikoo rek ci àddina bi en tant que doomu aadama lu mel ni lekk fardu ayni la saaren saaren bëgg ko lool bu lekk jotee ku ci ne day dugal sa loxo tibb dugal sa gémmiñ julli nag surtout jumaa bi fardu ayni la ci jullit bi nga xam ne mat na mu kalaf moko wara taxawel bopam kenn munu ko ci remplacer julli googu nak dafa am jeriñ lol muslim mo net li jele ci abu hurayra radhiyallahu anhu mune yunus yonent bi wassalam mo wax ne as-salawatul alsalawatu alxamsu waljumuatu ila aljumuati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna iza ijtunibatil kabair abu hurayra mu ne yónnantu moo wax ne julli juróom yi nga xam ne farata la muy juróom ci bés bi boo ko jullee ba mat sëkk julli gu ci nekk ak moromam ma ca topp la jaar ca diggante ñaari julli ci bàkkaar yàlla daf la koy jéggal boo jullee suba dund ba fekkee tusubaar mu jot nga julli ko bàkkaar yu ndaw ya nga def ci diggante ñaari julli yàlla dala koy faaral kon julli gu nekk ci julli farata yi diggante julli gu nekk ak moromam ma topp ca kawam boo defee ay njuumte ci diggante ñaari julli bàkkaar yooyu yàlla dala koy faral bu buñ ko bindee dañ koy gomee dañ koy effacé bu fekkee gom moo koy effacé ñu effacé ko bu fekkee blanco moo koy effacé ñu effacé ko mais danañ la koy faaral mais nag charte bi mooy lan isa tunni batil kabair bakkaar yu mag yi nga xaw ma xam ne li ko mën a effacé mooy tawbatan nasuhan moom dong moo ko mën a effacé kon li lay may bakkaar yi nga def ci diggante ñaari julli yi ñu effacé la ko mooy nga moytu bakkaar yu mag yi loolu moo tax julli juróom yi am solo lool ku koy sàggane yaa ngi sàgganee lu rëy rëy rëy mu ne julli juma kon tey julli nga jumaa yàlla may la nga dund ba fekkee jumaa bii di ñëw nga julli waat ko diggante ñaari julli jumaa yi li nga def ci bàkkaar yàlla dala koy jéggal mu ne weeru koor nga fekke ko woor ko ba weeru koor bi jeex nga dund ba beneen weeru koor ñëw nga wooraat ko diggante ñaari koor yi lañ nga ca def ci bàkkaar yàlla da la koy jégal kon ab jullit bu sàggan rekk rek mooy nangu ay bàkkaaram ëpp ay tiyaaboom lu tax boo defee benn tiyaabo ñu bind ko fukki point muy fukki tiyaabo boo defee benn bàkkaar ñu bind la benn bàkkaar nga sàggan ba sa benn benn yi ëpp sa fukk fukk yi kooku jullit bu sàggan rek moo koy def ci sunna ibnu maaja ci xadis boo xam ne Abu Saïd al-Xudri yi moo ko nettali mu ne yonuntaa sawar salaam xutbaal nañu de doon na ba di ñu ñaax di wax ak ñun lu mu wax ayyuhan naasu mu ne ee yéen nit ñi tuubu tuub leen tuufan ilallahi jëm ci yàlla tuubal leen yàlla mi nga xam ne mooy jéggale ay bàkkaar kañ la ngeen war a tuub mu ne qabla an tamuutu laata dee gi di ñëw nga xam ne day ñëw bett la mu ne avant nga dee gi di ñëw tuubal bàkkaar yi nga def waaye nuur ci bàkkaar yi rek bés bu ne dee ñëw di la waar sa doo waaw yoon su ne tuub leen laata dee gi di ñëw qabla an tamuutu mu ne wa baadiru bil amali salihaati qabla an tushxalu mu ne gaaw leen fagaru leen ñàkk leen daw leen jëm ci def yiw def ay tiyaaba lu leen jural yiw bépp jëf boo xam ne da lay jural tiyaaba góor li ci nga def ko bul xeeb ku dem ci àll bi di taxan mattu ko romb rek forol pour nga am say wuri kon lépp lu la man mën a may tiyaaba rek def ko bul xeeb waaw mu ne gaaw leen jëf-jëf ju yiw pour ngeen am ay tiyaaba laata ñàkk jot di ñëw ndax doomu aadama bi tëdd ci la feebar comme amatul jot def tiyaabo koo xam ne mala malakul mawti ñëw na bi rocc a gi mu ngay sukaraat tayet talatu def tiyaabo kon nag bi nga amee kattan li am yëg-yëg bi am man-man bi ngella defal lu lay may ay tiyaabo mu ne wasilu ladi baynakum wa bayna rabbikum fexe leen jokkalante seen diggante ak borom bi li ngeen séq moom xam yàlla tabaraka wa taala bim mu bindee arwaax yi ci aalamul arwaax def ak ñoom benn assemblé daf leen a posé question ne leen est-ce que du man maay seen borom roox yëpp seede na d'accord na yaay suñ borom yaa ñu bind mu jël roox googu samp ko ci jëmm ji mu ànd ak ay cër yàlla na ne jaamuma lu tax mu ne wama ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni loolu moo la fi tax a ñëw nga lànk ne doo jaamu yonent ne jokku leen seen diggante ak borom bi li ngeen séq moom ak li ngeen séq ak seen moromi jaami yàlla yi boo bëggee jokk sa diggante ak borom bi tabaraka wa noo koy jokke yonent moo la ko leeral mu ne bi kathrati zikrikum lahu ngeen di bëril di tudd yàlla tabaraka wa di ko fàttali moo tax yàlla ne dee tudd yàlla lu baree bari li ngay wax mu bari ci yow nga jàpp ne bëri na lu tuti la ci yàlla tabaraka wa taala ba bëggee jokk sa ak borom bi noy def moy dé ko fatali ko diko tuddu diko kañ diko bak ak lan lol kessé mu ne déedéet wa kathrati sadaqa di bëri loy saraxe bul xéb même suñu serigne Cheikh Ibrahim radiallahu anhu bokk na ci lim ñuy denkané lam daan denkané ne bu xeyé bés bi bu jant bi so mukk te génne wo sarax même buy morso mburu sax boko amé jox ko am miskin mu lek ko ñaanal yàlla tabarak wa taala bul xeeb bul xeeb olof fi nag dañuy wax ne yàlla xebul yemul ah kay yàlla xeeb na yàlla yem na ka lu yàlla xeeb moy jaam yàlla bu dajale ay milliards te bu genné sarax ay 1000 francs 200 lay genné ko yàlla xeeb na la muy def ndax yàlla may na ko wërsëg yaatu te du joxe wa min dabatin fil ardi ila allah risquha wërsëg ci loxo yàlla la nek yàlla jox la ay milliards ngay génnee asaka wala ngay mayee di booy saraxe di sarax ay 1000 francs ki 5000 francs te yaa ngi denc ay milliards kooku yàlla xeeb na lim def lu yàlla yéem ku amul dara te lépp lu ñu wote ci yoon yàlla mu jéem a rayante góorgóorlu dugal ca loxoom lu yàlla yéem na ko Ibrahima fay mi mën na fanaanoo aw mille francs ba koy dépensé ma ñëw jàmbatal ko sama mbir mu yëkkati ko jox ma ko te loolu rek la am kooku jëf ji mu jëf yàlla yéem na ko. donc kon yàlla xeb yàlla yéem yonentine jokku len sen digante ak borom bi ci ñaar yi ni di bari lu ngeen koy tuddu mais di saraxe sarax nak ñaar la fi sirri wala alaniya sarax soy feñal ak soy nepp waaw motax alquran wa in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara fa huwa khairul lakum yàlla ne sarax bu ngeen ko feeñalee baax na waaye bu ngeen ko nëbbee it mooy li bu ngeen ko nëbbee mooy li feeñal sarax ci waaju nay ci kanamam baax na mu xam ne kat sarax yàlla moo ko santaane ndax kii kat nawleem la mu ngi góorgóorlu ci jëf ju baax mën na am xolam waaru ci jëf ju waa ji jëf mu jéem koy roy kon feeñal gi danay baax ci ay jamono mu ne bu loolu bu ngeen ko defee lan la leen yàlla fay mu ne tursaqu yàlla may leen wërsëg bu yaatu wa tujbaru mu jànga leen seen damma damma faje leen seen i seen jafe-jafe mu teggil leen ko yàlla teg yonente teg ci ci hadis bi ne waalamu xam leen rek ne ana allaha tabaraka wa taala yàlla mi nga xam ne mooy aji bindi ji qad farada aleykumul jumaa farataan ne ci yéen ci yéen jullit jumaa kañ fii maqaami haza ci barab bii ma toog tey jii di wax ak yéen ci la jullit jumaa nekk farata ci yéen fii maqaami haasa ci jotaay bii may wax ak yéen yonente ne tey la jumaa nekk farata ci yéen jullit ñépp nag ku fekkee sama dund ak ku ñëw sama gannaaw ci yem moo tax mu ne fii shahri haasa ci weer wii ci la jullit jumaa nekk farata min ami haasa ci at mii ñu nekk ci la jullit jumaa nekk farata ba kañ nag lañ koy bàyyi mu ne illa yowmil qiyaama ba bés bañ ci taxaw la ñuy soog a kon jullit juma lañ xamee ne ci wax yonent bi faratale ci bépp jullit waa lu ci yonent bi teg nag tëkku tëkku mu ne faman tarakaha ku bàyyi julli juma benn jumaa rek sax boo ko bàyyee faman ci lu ngant mu ne faman ku bàyyi julli juma fii xayaati ci jamono bi may dund man yonent bi julli jumaa ñu farataal ko ci yow ji bésab tey bii ci weer wi ñu nekk ci at mi ñu nekk mbaa ngi dund deexu ma nga bàyyi julli jumaa yemul foofu de ndax bu yemul foofu ñun ñu ñëw gannaawam dañuy wax ne kat bokkuñ ci mu ne aw baadi yi wala sama gannaaw bu ma fi jógee nga bàyyi julli jumaa bañ a julli te fekk nag wallahu yow mi bañ a julli am nga lan imaamun aadilun ilimaan bu mandu ba la mën a jiite mu ngi ci jàkk ji wala ci jumaa ji di la xaar bu yemoon foofu nga ne man du ma julli ji ndax imaam bi jiite ci jumaa ji neexul ma kàccoor la mu ne aw jaa'irun wala imaam boo xam ne ab kàccoor la waaye am na xam dana am xam ba nekk kàccoor ba pare nekk kàccoor moo tax mu ne aw jaa'irun aadilun imaam bu mandu nga am wala nga am imaam bu nekk kàccoor waaye am na xam-xam bu mu la jiite rek wala yow da ngaa bàyyi jumaare ngeen istixfaafan da ngaa oyofal mbiri ji man ah garaawul waaye man damay nii dama xaare bu ci subaa jot ma julli ko yow da ngaa oyofal julli gi pour yow garaawul daal bàyyi julli jumaa du dara ci yow yaa ngi bi oto bi gaare na nga koy réparé mécanicien nga wala menuisier nga wala ab commerçant nga wala ab enseignant nga wàcc nga sonn na at ah man daal tey dama sonn ci cours yi dama xaatu subaa jot ma julli wala ab médecin nga yaa ngi ci nangam nangam yow daal oyofal nga mbiri jumaa gëm nga ne jumaa daal du daa moo julli farata yi ñoo yem وتمن استخفافا بها ولا او جحودا ولا يوليون انت وخي الله وخي القران غموك صح يقول لفين واو آه، يقول لفين ما يقول لك دونك ايوفال بام اوب يونو تني واجوجو فلا جمع الله شملا يونو داف كو نيانا ناي كوكو لانك ني دو جولي جمعه يالنا بو يالا ديفر اي ميرم اي ميرم ييب يالنا كو يالا تساري با دارام دو سوتي لوم سوبو رك يالنا بوم باخ لوم دوغو يالنا نين يالنا دوغو لوم دوغو رك نا اشك yàlla bu mu réussir ci dara ñaanu yonent na yàlla da koy nangu mu ne wala baraka lahu fii amri mu ne même mbir yim nekk yàlla bu ci yàlla dugal barke ku noonu mu ne la ngay yëngu yow mi bañ a julli jumaa loola ngay yëngu yàlla bu ci yàlla def barke barke nag lu mu nekku rek nattu ñëw na mu ne ala wala salaata lahu nee na kooku beneen julli bu mu julliwaat ci julli farata yi sax yàlla du ko nangu boo bàyyi julli jumaa dem julli tisbaar sa julli tisbaar yàlla du ko nangu tàkkusaan gi nga cee teg ak timis ja ngi teg yàlla du ko nangu ndax jàng nañ ci xaddis na doom aadama dana jàpp lalab sajaadaam kabar jublu penku julli ba sëlmal malaaka yi lem julli gi dóor ko sa xar kanam gi julli gi na la yàlla na nga torox kam ni nga ma toroxalee juma aj màkka jot nga dépensé 3 millions 4 millions dem màkka zéro amoo dara yonentu moo ko wax wala xajja lahu amoo aj ala wala birra la nee na topp yàlla yi muy def yëpp zéro la bu dépensé woon alalem ci lu nekk te bañ a julli jumaay deful dara zéro loolu nag man na am na saafara bu la dalee yow mi sàggan yow julit bi sàggan loolu dal la pour nga mucc ci nooy def xattaa ya tuuba yonentu nee na ba nga tuubee boo demee tuub rek yàlla nangu la bunt tuub yàlla ubbi na ko duñ ko tëj mukk fekk jant bi fenkee wul fii soxee fii duñ ko tëj mukk feeg roox gi nekkul ci yaram bi di waaj di génn malaka malki di ko xëcc boo tuubee rek yàlla jéggal la moo tax mu ne xatta ya tuuba fa man taaba taaba allahu alayhi ku tuub rek yàlla tuubal la jéggal kon xadis bi muy xaddis bu am solo ci jullit juma moom rek doy na waxtaan te daa iman ajjuma yu bari boo demee Medina di ko dégg ci ba jumaa Baay Ñas yal nañu yàlla fayal bàyyi xutba gii moo ñu ko bindal ci laa ko jëlee jéggaani huma fenn waxi Baay Ñas lay nettali xutbaam kon la ñuy wax ci jumaa ji di ko wax ci taalibe bàyyi fu ñu mën di nekk ci yeneen jumaa yi ñuy jiite xutba yii la kon bàyyi léppam njëriñ la amuñ payam yal nañu ko yàlla fayal moom mi mën a fay bu ñu demee ci beneen xadis boo xam ne muslim moo ko génnee kan moo ko nettali Abu Hurayra ak ibnu omar ñoom ñaar ñoo ko nettali ñoo wax ne dégg nañ ci yonent bi alei salatu wasalaam ndax ñoom dund nañu ak moom mu wax wax joo xam ne ba mu koy wax mu nga yéeg ca min baram ba taxaw di waar jullit ñi lu mu wax mu ne ay nit yoo xam ne aw nit yoo xam ne dañuy bàyyi jumaa duñ nangoo julli jumaa loolu ñuy def feeg bàyyi wuñ ko yàlla dana kaste seen xol yi ba leer du ca dugg ñu gëlëm ngëm yàlla wàññeeku ci seen xol yi ñu bokk ci ñu sàggan ñi nga xam ne dañuy sàgganee seen jaamu yàlla ba ëllëg ñu tàbbi safara ci ñàkk topp yàlla tabaraka wa taala te leen xëñ mooy ñàkk julli juma kon julli juma lu am solo la ibnu abbas radiallahu anhu moo ñu nettali mu ne yonent bi nee na man taraka al jumaa thalathan mu ne ku bàyyi ñetti jumaa yu toppalante julliwoo ko lan lañ lay def mu ne kutiba inda allahi munafiqan nee na kooku bind na yàlla bind na ko ca téeréem ba nga xam ne doom aadama bu nekk yàlla nga la boole kiraman kiraaman kaatibiina jàng nañ ko ci suuratu lan al infitar kiraaman kaatibiina ay malaaka yoo xam ne ñu ngi ànd ak yow di bind liggéey jëf buy lu baax ki nekk ci mbaggam càmmooy bi ndeyjoor bi bind buy ki nekk ci mbaggam càmmooy bi bind yow nag mi sàggan bàyyi ñetti jumaa julliwuloo ko dañ lay bind ca téere booba nga xam ne ab liste la lañ la fay ubbil ab page boo xam ne dañuy bind ne Ablaye Njaay mii kat bàyyi na ñetti jumaa julliwul ko ñu bind ko fa te buñ la bindee foofa téere boobu duñ ko effacé mukk duñ ko soppi hit nag moo tax yonent salaatu wasalaam ne fi kitaabin laa yumha téere boo xam ne duñ ko effacé wala yu baddalu te duñ ko wattee indiwaat beneen dafay sax rek ba nga dajeek borom bi tabaraka wa kon kuy sàgganee ñàkk jul julli jumaa xamul li muy def ci lu ngant mu ne waman tarakal jumaa thalatha ku bàyyi ñetti jumaa julliwoo ko yu topplante mu ne lu faqad nabasal islaama waraa zahrihi kooku na xam ne sànni na lislaam ci gannaawam gannaaw lislaam ak ca gannaawam mën na ci nekk nag ci ambiance bi di yëngoo ko def ak kërëb kërëb rek kese mais lislaam ak ko féetee gannaaw kon wax ji nag ñim gën a concerné mooy xale yu góor yi booy disko yi nañ bàyyi xel de ne jaamu yàlla du mag a ko moom de gis nga jaamu yàlla ñëpp ñëpp a ko moom góor ak jigéen na ca yem man yaamal min alsalihaati fa man yaamal min alsalihaati min zakarin aw untha jàng nañ ko ci alquran ku def lu baax moo xam góor nga wala jigéen nga yàlla fay la foofu amul parité de li ñuy wax ay parité naan benn góor ñëpp a yem foofu góor ak jigéen a yem yàlla loolu la gis ndaw ñi it nañ xam ne jaamu yàlla du du mag kese bañ nañ ko bëj suñ mën yi jigéen ñi di toggee balañ koy taxal dañuy indi matt gu ndaw ak matt gu ndaw gu mag jiital matt yu ndaw yi jël matt yu mag yi teg ci kaw taxal matt yu ndaw yi tàkk taxal matt yu mag yi kon safara kay mag dana fa dugg ndaw dana fa dugg loolu yàlla di misaale fii ñu ngi koy def ñun gannaaw ñun ñooy lakk mag ak ndaw kañ ndaw mooy taxal mag ah, te xam nañ ne safara waquuduha naasu wal xijaara lañ jàng qu anfusakum wa ahlikum naaran waquuduha naasu wal xijaara kon safara sa la koy xam ay nital ak ay doj la waa nit buñ ko waxee xale dafay mën a génn ci nit ñi xale du nit kon xale danañ ko lakk ni ñuy lakkee mag xale bu lànk de do joomu yàlla yàlla da lay lakk comme ni muy lakkee mag ñi bañ a jaamu yàlla eh, buxaari nettalil ñu xaddis boo xam ne encore abu hurayrata moo ko wax mu jëlee ko ci moom mu ne yonent bi salaatu wasalaam dafa wax ne man ixtasala yowma aljumaati gusla aljanabati suma raaxa ila almasjid fa ka annama qaraba badana ñu koy dégg daayiman ci xutba jumaa mi dina bàyyi ñes mu ne ku sangu bésab ajjuma ca ngaayal farata xam nga boo xoon ku sangu rek noppi mën nga jël sa saabu rek sa ndox nga sangu ba set sol sa yére yu xoppoo sa laskoñ sa laskoloñ dem ci jumaa ji déedéet def na xuslal janaabati ca ngaayal farata suñ mbokki jigéen yi julli ji jumaa ñu bàyyi xel ci loolu léegoo la nga gis jigéen joo xam ne dañuy dem ba ci këram génn àddina mu war a muuru tënj ñu ne dañ koy jàngal ca ngaay danay am ci jigéen ñi xaw ma nag lu tax nag ñu koy jàngal ca ngaay fa mënu toon jamono bu muy ànd ak jëkkëram di sëy wala di lu ndax ku ànd ak góor sëy war nga sangu ca ngaayal farata kon nañ ko jàng xam ko lislaam amul kersa loo xamul laaj teel fasalu ahla dikri in kuntum la taalamuuna la ñu yàlla wax ku xamul laaj teel kon bala ngay julli ju jumaa danga war a ca ngaayal farata wuslal janaabati boo sangoo ba pare nga départ dem ci jàkk ja teel a yegg lool bokk ci ña fay njëkk a yegg yool ba ngay am mu ngi mel ni ku rey gëlëm jaamoo ko yàlla yool bu tollu noonu ngay am ca teel a dem nga nga teel a dem yow mu njëkk a dem waaw boo demee ci sa ñaareeli waxtu bi nag mooy deuxième saa bi mooy ñaareeli waxtu bi yow ci nga dem bokkoo ci njëkk teel a dem am nañ xaar nga ba am ñu la fa jiitu nga bokk ci groupe bi ñëw après mu ne dem googu nga dem gannaaw bi nga sangoo mu ngi mel ni ku rey nag jaamoo ko yàlla tabaraka wa taala moo tax mu ne fa ba xaraba baqara bu fekkee ci ñetteeli waxtu bi nga dem nga bokk ci ñetteelu groupe bi kooku mu ngi mel ni yaa ngi rey gàtt boo xam ne kuy la am ay béjjin comme kuy yi mat tëbaski mat ngénte nga rey ko jaamoo ko yàlla yool bala yàlla di bindal bu toll noonu ngay am boo demee nag ci ñeenteeli waxtu bi mu ngi mel ni ku rey ganaar jaamoo ko yàlla boo xaaree nag ba bokk ci ñi mujj a dem nag nga xam ne bu ñëwee dañu fekk jumaa ji fees ñooñu yaa ngi mel ni ku jëndab nen wala jëlab nen jaamoo ko yàlla am nen boo ko saraxee jaamoo ko yàlla yool bu toll noonu ngay am gis nga niñ rawantee ku njëkk a dem ki am gëlëm ki ci topp am nag ki ci topp am xar kuy mu am yi béjjin ki ci topp am ganaar ki ci topp am nen waaw xoolal nen ak gëlëm nag ni ñu wutee kon loo looy xaar ci kër gi doo teel a dem mel ni Baay Faal mi nga xam ne day teel a dem lool nga xam ne daanaka ñi lal basang yi eh, duñ ko jiitoo lu bari loolu moo baax loolu lañ soxla gis nga jàmm yàlla boo koy def del sàkku la gën a baax la gën a bari mais bul wax ne dama koy def rek muy forme booy def rek ngir def déedéet dégg yàlla tabaraka wa taala wax ñu ci alquran aaya bu leer nañ boo xam ne ci lañ farataalee jullit juma ci sóoratul juma saar buñ tuddee juma ne yaa ayuha alladina amanu ida nuudiya lilsalaati min yowmi aljumuati fascaw ila dicri llahi wa daru lbayca dalikum xeyrun lakum in kuntum taalamuuna ci aaya bii yàlla tabaraka wa taala dafa addu wax ak ñan ñi gëm yàlla waxut yaa ayuha nnaas de yaa ayuha alladina amanu ndax jaamu yàlla ki ñu koy sant mooy ki ne man gëm naa yàlla ndax jaamu yàlla jaamu yàlla bale la ciy fay al iman mooy jiitu ci kol bi waaye jaamu gi imaan nekkul ci xol bi loolu du jaamu yàlla moo tax yàlla ki muy waxat mooy yaa ayuha alladina amanu ñi gëm yàlla waaw lu leen wax ñépp na tekk di ko déglu mu ne isa noodiya bu ñu noddee bu ñu wootee ila salaati na ñëw leen ci julli jumaa gii ci jumaa ji mu ne lu ngeen war a def waxu dox leen de fasaaw daw leen gaaw leen waxu leen dem waxu bi tekkut boy dem nga daw tekkut boy dem nga waxu dedet moy doxal bi sëkkii and ak dal mais dafa bëgg li ngay def lepp nga bayiko lepp lum la fekk nga deggu nodd gi rek tek ko fa iza nuuriya li salaati min yawmi ljumuati fasaw ila dhikri dikrillahi demal fa ñuy tuddee yalla boo yeggee kon no wara def tudd yalla tabaraka wa taala tudd yalla nak bari na jàngal alquran jëlal sa kuréel gi salaatul fatih tudd yalla bakkal yàlla kañ yàlla juli ci yonentam bi ndax yàlla moo ñuy wax ne nañ julli ci moom ndax moom ak malaakam yi dañuy julli ci moom kon jullil ci yonent bi yaa ngi tudd yàlla mu ne fasaw ila dicrillahi yàlla xam na ne doom aadama dafa bëgg koom ci bakkanam lañ ko moñaale am na yeneen yoo mën a def waaye mu ne wazarul bayaa bàyyi leen jënd ak njaay bu la fekkee ci boutique bi tëj ko lépp lu mu la fekk bàyyi ko waaw wazarul baya bàyyi leen jënd ak njaay fasaw ila dikrillahi wazarul baya nee na nag loolu bu ngeen ko defee zalikum lool nag ngeen bu ngeen ngeen war a def bu ngeen ko defee xayrun lakum moo gën ci yéen day fekk in kuntum taalamuuna bu ngeen xamoon fekkee xam ngeen dëgg-dëgg da ngeen xam ne loolu moo gën ci yéen mu xam ne jaamu yàlla farata la ci ab julit waaye nag dafa am waxtu wuñ ko ko sant bu paree dafa war a dem nag ñaq moo tax mu ne fa ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillahi mu ne bu julli gi jeexee nag takkal sa tubay buy góor buy jigéen takkal sa sa njodom ngeen dem sàkku ji wërsëg ci anamin bu dagan pour am loo lekk ndax doomu aadama du dundee suuf te pour nga jaamu yàlla fokk nga lekk wërsëg wi kat pour nga jot ci dafa laaj nga def effort moo tax mu ne fa isa qudiyati salaat fantashiru waxul nga dem tëdd nelaw déedéet jóg ngeen tasaaroo ku ci ne dem ci métier ba nga nekkoon delluwaat ca pour ñaq loo yóbbu ci kër ga leeral sa njaboot gi lu dagan moo tax mu ne fantashiru fil ardi waxut nag ñu dem fo fohi déedéet wabtagu min fadlillahi ngeen sakku ci ngëneel li yàlla def ci kaw suuf si waaw sàkku ngëneel loolu yi nag bum dox sa digganteeg tudd yàlla tabaraka wa taala moo tax Cheikh Ibrahim ci waxtaanam yi muy def kaset yi ñu ngi koy teg ci rajo yi nee na mécc leen bépp mécc boo xam ne dagan na bu ngeen sàkk ci wërsëg waaye nag bum dox seen digganteeg tudd yàlla ak jaamu yàlla tabaraka wa taala loolu la santaane moo tax yàlla ne waskurullaha fu ngeen man di toll mécc bu ngeen man di yor da ngeen di fàttaliku yàlla di ko tudd bu ngeen ko defee tudd gi nag lu bari la waskurullaha kathiran yàlla buy wax lu bari xam nga ne du tuur lu tuuti ndax la bëri ci yàlla lu xam nga ne ñun waxtu ñun yow li bari ci yow en tant que doomu aadama lu néew la ci yàlla yàlla ne nañ ko tudd lu baree bari nag loolu mooy tax bu fekkee bëgg nañ texe moo tax mu ne la laalakum tuflixuna boo bëggee texe da ngay tudd yàlla tabaraka wa taala lu bëri di ko fàttali eh, kon ci aaya bi ñu dégg ci ne yàlla tabaraka wa dafa sant jaamam yi ko gëm ne buñ déggee noddu bésab juma nañ dem julli ji nañ dem julli ji jaamu yàlla tabaraka wa taala nañ bàyyi njënd meeg njaay mi ak lépp luñ yor rek nañ ko fa teg dem julli ji waaw kon nag xoolal doomu aadama bi sàggan di sàgganee julli juma jàpp na lu oyof la ci diina ji ak ni yàlla fonke julli juma ak ni ko yonent bi fonke ak boroom xam-xam yi sëriñ si saxaaba yi taabiin yi yow ngay jullit bu ñëw barki démboo njaay di ko oyofal fekk yaa ngi oyofal lu diis lool te julli juma njëriñ li bari na lool ci wàllu social wàllu économie wàllu bëri na lool buñ ko doon lim mënuñ ko jeexal ci jotaay benn ak jotaay kon julli jumaa yàlla tabaraka wa taala moo ko santaane yonent bi ñëw fedd leen ñu ko ci ay xadis julli juma nag bëri na ay njëriñ bokk na ci njëriñ yi mooy société bii ñu bokk ñun en tant que doomu aadama danañu yombalal jàppante ci suñu diggante ndax booy dem ci jumaa ji danga fa xam ñu bari ñoo xamutoon ndax jumaa mbooloo mu bari ñoo fay dajee tey nga dend ak ma sàmba nuy wante moom saafu wante moom ëllëg nga dend ak ma demb gannaaw ëllëg nga dend ak ma penda wa hakaza kon julli jumaa lim ñuy jural ñun mooy taraabut mooy jàppante ak miinante ak bëggante ak soppante ndax mbooloo ma fay dajee mbooloo mu jógee ci barab yu fasante koo la te xamante fokk mu jur njëriñ te buñ xamantee danañ dimbalante ci topp yàlla ak luy jur ragal yàlla tabaraka wa taala léegoo léeg ñu teew ci jumaa tey jii am mbokk bu fi daan teew teew ñu xam ne dafa absente fàddu nañu dem nemmeeku ci ko soit ñu fekk mu feebar wala ñu fekk mu tukki waaye fokk ñu nemmeeku ko xam ci lu mu nekk bu feebaree ñu jàppale ko mu faju bu fekkee ku nekk ci jafe-jafe ñu jàppale ko loolu jumaa dana koy jur bokk na ci mooy dimbalante léegoo léeg ñu dem ci juma surtout ñun ñu nekk Dakar moom chaque ajjuma ñu gis ko julli juma ñu ne dañ am suñ mbokkam taalibe wala suñ mbokkam jullit bu daan julli si dafa feebar am ay ordonnance bëgg ñu dimbale ko ñu dajale alal bon som bu am solo jox ko mu jënd ay ordonnance am loolu juma dana koy def juma am na kees boo demee ci yenn juma am nañ kees yoo xam ne dañ ciy dimbale ñu ñu am ay jafe-jafe man am naa mbokk moo xam ne jumaa ba muy jiite am na kees ay kees yu ñu def ci biir jumaa ji sëy bu ñu fa takk la ñuy joxe ñu dugal ca lu waaye saraxe ñu dugal ca bu buñ dawalee un an ñu ubbi kees gi dañ cay fekk ay million ay temps ndax quartier ba ay patron ñoo fa dëkk ñu recensé ñi ña am soxla ci koñ bi ba xam ma sàmba ma dembala ma penda la dégg nga ñu jël somme bi def ko ci enveloppe xaar ba guddi ñu am benn délégation ñaari nit ñetti nit ñu wër kër yi ndànk ñëw jox ko ko ci njëkk teraanga mu faj ay soxlaam kon dimbalante alal birri wa taqwa bi ñu yàlla sant jumaa da koy jur te yàlla moo ñu ko sant mais juma danay danay defaroo danay defaral defar ay nit ñu xuloo ñoo xam ne jubóowuñ imaam taxaw ci bilaal beeg waa jàkka ji wala waa jumaa ji ma sàmba dafa meroog ma demba ñu fexe ba ñoom mu ne ñu juboo jumaa danay def loolu dégg nga juma danay dimbale ku nekk ci jafe-jafe am nga ay problème sociale yoo xam ne problème mu kër nga am ñu xuloo ñu duggante fii dégg nga jumaa ji def délégation ñëw fexe jubale lay yaag sa waa kër moo xam sa jabar la moo xam sa yaay la wala sa papa la tout cas am na rôle bu muy def lu am solo ci wàllu social te loolu nag yàlla tabaraka wa moo ñu sant moo ñu wax ci suratul an'am وتعاونوا سورة المائدة استغفر الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ñi jàng grammaire u arab xam nañ la loolu verbe bu ñu conjugué ci impératif fi'lu amr wa taawanu dimbalante leen la yàlla wax kon santaane la bu ñu yàlla sant ñun jullit ñi wa taawanu dimbalante leen ci lu ñu dimbalante alal birri wa taqwa mooy loo xam ne daf ñuy jural topp yàlla fi ñu yàlla ne nañ fa teg suñ tànk waaye duñ dimbalante ca safaan ba ak lu ñuy jural ragal yàlla tabaraka wa moo tax yàlla bi mu waxee ne dimbalante leen wax ñu ci lan la ñuy dimbalante dafa jëfandikoo laa naahiya laa boo xam ne dafay tere ne wala taawano bu ngeen dimbalante ci lan alal ithmi wal odwaani luy jur bakkaar ak noonoo seen diggante orientation bu leer naññ kon jumaa bi danañu jural ñu dimbalante alal birri wa taqwa moytu dimbalante alal ismi wal odwaan bokk na ci ngëneelu jumaa ci xadis boo xam ne muslim moo ko solo ñu jëlee ko ci abu hurayra radiallahu anhu mu ne yonentu salaatu wasalaam nee na ku jàpp njàpp lu mat sëkk rafetal njàpp la sol say dàll ak sa yére yu set wecc dem ci jumaa ja ba nga yeggee nga toog déglu lañ fay wax fekkee alquran lañ fay jàng nga ko setantal ko di ko xeraw ci diggante ajuma ba weesu ak ajuma bi nga nekk yokkal na ca nag ñetti fan mbuuñaa muy bonus du yem ci semaine bi de diggante ñaari ajuma yi déedéet ajuma bi weesoon ak bi nga nekk muy juróom-ñaari fan wala juróom-ñetti fan mu may la bonus ñetti fan waaw yàlla nag moo ñu gën a mën a joxe bonus xam nga ñun léegoo ñu def fii cent pour cent léegoo la cent pour cent waaye yàlla moom am na sept cent pour cent wax na ko ci alquran benn pepp benn pepp bi ngay duwal ci suuf si muy pepp dugub masalan mu jural la benn gattax gattax ba dem ah, def ay def euh, gub gub ba ñaata pepp cay nekk boo ko kontoon rek waxa rek gub ba ñaata pepp moo ci mën a nekk boo ko boojee ñaata téeméeri pepp nga ci mën am kon sab yàlla moom yemul ak bonisu benn mbindeef ci kaw suuf si léegi nag ki nga xam ne dafay sàgganee julli xam ne julli farata la ci moom moo koy sàgganee seytaane dox digganteem ak julli wala alal ba léegi surgaab seytaane la dox digganteem ak julli tajuta taluta tëj magasin bi wala boutique bi dem jaamu ci yàlla na xam ne ku ko gën a sàggan amut ndax bàyyi na santaane bi yàlla mooy dox dem jaamu ci yàlla ñi dem Makka gis nañ bu ajuma jotee wala waxtu julli bu nekk sax ñoom du ajuma kese ci marché bi nga nekk di jënd dangay dugg ci magasin di jënd di waxaale pare guloo waxaale bi ñu nodd boroom place bi talatul mottali waxaale ba lam lay wax rek gé yàlla bara barra génnal abal ma damay julli ji boo génnul mu romb la fa am na ñoo xam ne seen place sax duñ ko tëj ñu yor taabal niit ay morceau la ñuy jël rek muur ci kaw rek dem ci jumaa ji julli yi wala jàkk ji julli yi police yaa ngi circulé ci marché bi dégg nga boo defee dara caméra caméra yi ñu ngi lay surveiller caméra yi ñu ngi leen di surveiller ñu monté donc kon julli yemul ak dara bu jotee lépp luñ jàpp dañ koy bàyyi ñu dund ak Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu ci Madina bii gis nañ ñi mu fokke woon julli juróom yi muy guddi muy bëccëg muy fajar mu naaj mu sedd mu tàng mu tooy mu lëndëm mu leer Cheikh Ibrahim dana julli ji kenn mënu ko teree dem ci jumaa ji julli juróomi juróomi julli yépp daanu dugg oto sax daf ko daan baagante sol dàllam te yetam dem julli ji lii moom képp kuy taalibe Cheikh Ibrahim dan dëkk moom ci Medina mën nga ko ko seedeel nit nag boo koy topp toppoo ko ngir taaram toppoo ko ngir mën a waxam waaye danga koy topp ngir jëf yu baax yi mu jëf nga roy ko te moo wax ci làmmiñam ne man duhuma sëriñ buy dig dëkk buy dig nit taalibe aljana li ma leen mën a jëriñ mooy li ma leen di digal ci lu baax ngeen topp ko ànd ak man ñu jëf ko li ma leen di tere ngeen bàyyi ko bu ëllëgee danañ mën a daje ca barab ba ñuy séntu ne war nañ fa daje te mooy jannatul aliina wala firdaws yal nañu ko yàlla may ñu ànd fa ak moom bu ñoo kon yow miy sàgganee juma man nañ la dugal ci groupe bi yàlla di wax ne wa iza ra'aw tijaratan aw lahwan infadu ilayha wa tarakuka qa'iman qul ma inda allahi xayrun min allahi wa min altijara wallahu xayru rasiqina yow jullit bii sàgganee julli jumaa ci groupe bi nga bokk yàlla moo ko mu ne yow yonent bi am na groupe boo xam ne boo taxawee ci jumaa ji ba pare pour julli ñoom ñuy gis am commerce moo xam ne mën nañ fa am mën nañ fa gagné marché boo xam ne mën nañ fa gagné ay dërëm tijaaratan la wax commerce aw lahwan wala ay caaxaan yoo xam ne seen bakkan dana fa féexee ñu romb la ci jumaa ji dem ca loola dem ci commerce bu wuti fa ay deureum wala ñu dem ci mbex ma duufal fa seen bët wala duufal fa seen nopp wala duufal fa seen bakkan aw lahu nin fudu ilayha ñu daw ñom ñep jëmali fuf wa taraku tarakuka qaiman ñu bàyyi la ci jumaa ji nga taxayoo di jaamu yàlla ñu romb la fa waye nak wax leen na leen qul wax leen na leen bu ngeen xamoon ma inda allahi khairun min allahi wa min tiyaara la yàlla yor dencal ko jaamam yu seddi billahi mo gën موجن فون موجن كوميرس خير من اللهو ومن التجاره في اللهو لجيت التجاره فلم جيت تجاره في اللهو من والله خير الرازقين ورسك موم كوي سنتو فن يالا موكو يور تا مو گن سي ني جوخي ورس بو ياكار درم ما سامبا بام تخلي باي جامو يالا ورسكو يالا مو گن لو مو گن اپو مو اپو سول ajjuma du caaxaan bés la boo xam ne mooy sangu bés yi yàlla ndëxëñt ci wala denc ci ay ngëneel yu baree bare baree bare bokk na ci ngëneel yooyu am na ci waxtu woo xam ne boo tombeeg moom nga ñaan ci yàlla te la ngay ñaan nekk lu dagan fokk yàlla nangu ko yonent bi moo ko wax waxtu boobu nag borom xam-xam yi wuti nañ ci waaye li ci gën a yenu maanaa borom xam-xam yi wax ko li ci ëpp ci ñoom nee nañ mooy gannaaw tàkkusaan moo tax suñu suñu suñu suñu suñu xutb bi di Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu indil ñu hayla la muy xadaratu jumaa dencal ñu ko foofu pour ñu mën a bénéficier wu ci waxtu bu am solo boobu loolu Tidiane yi rek ñoo ko am wax dëgg yàlla Cheikh Ahmed Tidiane may nañu lu rëy rëy rëy rëy cépp kuy jullit na mën nga profité ci waxtu boobu jullit ñëpp a ko moom nag mooy baax baadal asri gannaaw tàkku sànn mooy nee nañ mooy waxtu nangu ñaan bi nga xam ne moom lañ denc ci lan ci bésab ajjuma ci ah kon ku yàlla may nag moo tax sama sama gaa yi mel ni Baye Fall mi kenn mënu ko ko teree def sànq la ñuy wax nañu damay dem defi sama xadra juma lu ma fekkee ci conférence bi jël mu ngi nii dem na xadra ñëw jëriñu ci xadra ba ñëw teewee conférence bi Euh, bésab juma dafa màgg julli gi màgg yonentu moo ko wax de moo ne inna yowmal jumaati sayidul anaami mu ne bésab juma mooy sangi bés yi ta moo ci gën a màgg ci yàlla nee na wa huwa azamu indallahi min yowmil adha nee na moo gën a màgg bésab tëbaski moo gën a màgg bésab korite ndax yàlla da cee def ñetti kaawteef ñetti juróomi mbir yu am solo waxoon naa ko ci tàmbali ba bokk na ci ajuma ci la yàlla bind aadama ajuma ci la yàlla wàcc aadama ci kaw suuf si ci la ko yàlla faat mu dee am na ci waxtu boo xam ne loo ci ñaan yàlla mu nangu ko lu dul nga ñaan lu xaraam nag bés bañ ci ci bésam ajjuma lay am te ajuma nag bu jotee malaaka yeeg asamaan yeeg suuf seeg ngelaw leeg montagne yeeg géej yee yëpp day ñëw màggal bés bi xam ne bés bu màgg moo ñëw nii muy bésab ajjuma kon affaire caaxaan imaam ahmad nag wax na ñu ne li ëpp ci xadis yi yonent bi wax di tudd waxtu boobu ñu ne waxtu nangu ñaan la ci juma nee na li ci gën a wóor mooy gannaaw tàkkusaan baada salaatil asr imaam ahmad moo wax loolu mu bokk ci nag ci njëriñ ñi nga xam ne bésu ajjuma am na ko te yonent bi santaane ko ñu am suñu sëriñ Cheikh Ibrahim def ko sunna su rafet ca Medina mooy bu ajjuma jotee bés ba ineer jot rek ñu teg Alquran lu ñu teg suratul kafi saaru kafi fokk ñu jàngal ñu saaru kafi nga koy dégg ndax jàng saaratu kafe ci bésab ajuma dalay may leer boo ko jàngee yow jullit bi tey ci ajuma ji yàlla dana la may leer gu ànd ak yow ba ajjuma ji delsi loolu moo tax jàng saaru kër kafe ci bésab ajuma am solo lool eh, kon nañ moytu yàlla santaane ñu koy sàggane yonentu ñëw fedd li ñu ko ñu moytu hit nag sol sa dàll ba nga sangoo ba pare jàpp sol sa yére di wuuti ay yool ci jumaa ji dem di fa jëlee ay bàkkaar te day am loolu bokk na ci li yónnante di ñu moy toloo lu tax ndax nee na léegoo léeg ab julit dem ci jumaa ji di sàkku jib yool def lu koy xeñ yool wala mu wàññi yool ba mu fa war a jële lu mel ni lan dem ci jumaa ja toog imaam di xutba ngay waxtaan dem ci jumaa ji toog imaam yéeg ci minbar bi di xutba yow ngay waxtaan wala sa téléphone sone yaa ngi jël say écouter dugal ci say nopp man mas naa toog ci jumaa ji ba julli jumaa dend xale boo xam ne rajo la ubbi di déglu rajo écouteur yaa ngi ci nopp bi te mu ngi ci biir jumaa ji man maa ngi dégg rajo biy wax ci nopp mi parce que téléphone bii lii dafa dem ba yóbbu ñu ci étape bu doy waar ci suñu dund fi mu nekk nii ci wàllu santé ci wàllu social ci wàllu jaamu yàlla dem na ba yegg sax ci diggante jëkkër ak jabar nañ war a jege kii daf leen di empêcher bu duñ jegee noonu demal ci teeru bi xam nga ñun fii sax mucc nañ ci yooyu jëkkër ju liggéey ba wàcc jabar ji liggéey ba wàcc ñu toog ci saal bi ku ci ne yaa ci sa téléphone connecté kaj kaj kaj kaj kaj ba tëdd jot waaw kañ ngeen di waxtaan yéen da ngeen a xëy ku ne dem liggéey donc kon nit dana sol dàllam dem jaamu ji yàlla di sàkkub yool soit mu jëlee fa bàkkaar wala yool ba mu fa waroon a am wàññeeku mbokk na ci li koy jural nit ñëw ci jumaa ji fekk jumaa ji fees ñëwoo ca saatul ula ca waxtu bu njëkk ba yow ne danga bëgg a dugg nag jullee ca sàppe su njëkk sa lu tax nga ne kat dégg nga ne ñu ne sàppe su njëkk dafa am tiyaaba ju bari yow nga yéex a ñëw di xëtt nit ñi di jéggi nit ñi di jéggi nit ñi pour bëgg a yegg ci sàppi su njëkk sa fekk yaa ngi jural sa bopp ay bàkkaar yu bari te kat yonent bi salaatu dafa mas taxaw benn bés ci min baram bi di xutba seen benn waay bu saggan yéex a ñëw di xuus nit ñi rek ba ko yonent séenee dafa arrêté xutba gi gis nga xutba ni mu amee solo mu arrêté xutba gi addu wax ak waa ndax li waa def daf ko déranger lu bon lay def xam ne kii lu muy def lu lu baaxut mu arrêté xutbaam gi na ko ijlis toogal faqad azayta yaa ngi lor nit ñi yaa ngi jural sa bopp ay bakkaar yaa ngi def njuumte waaw yonentu boo waxee waa ji na ko toogal yaa ngi lor ni ñi kon ñu déggee ci na lor julit l'islam daf ko tere lor jullit l'islam daf ko tere جولي كان ورق الله ده نعم، القران ده فيني وخنا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يعني ما وخش القران ني ني لور ني گم يالا ني غور ني ولا ني لور ني گم يالا ني جيجين ني تا دفوñ بن بكار بوكو تيار دفوñ دارا لوكو جار nañ xam ne kat xen nañ seen bopp bàkkaar bu dis lool ak njuumte gu rëy goo xam ne bu leen yàlla jéggalu danañ am bàkkaar bu rëy rëy rëy rëy kon lor julit yàlla daf ko tere gannaaw jéggi gi ngay jéggi ci ay doxam rek pour yegg ci am place ca kanam wala di uti place ca kanam yaa ngi koy lor rawatina ak yeneen loraange yu garaaw yi gën a garaaw kon ñu gis ne julli juma du affaire caaxaan dana yéwénal mbokk yi waaw dëgg la kooku dama ko defoon muqaddima moom laa defoon muqaddima danaa ko firi insha allah mooy xadis bi ma ubbee jotaay bi dama ko liir ci arab rek te firiwuma ko ci olof jazakallahu xayran bala may yegg ci jeexlu jeexlu conférence bi ndax maa ngi ci jeexlu bi ma delu wat ci hadith bi ma firi ubbe jotay bi khutba la gu Cheikh Ibrahima Niass ci lañ ko jele waxna len lima fi andi lépp ci Baye Niass la ko jele andi indiwuma sama fi bop de ndax man xawma dara euh sante yàlla tabaaraka wa taala la Baye ubbe khutba gi mune mu ngi sante yàlla mi nga xamne mo def jullit juma mu bok ci feet yi gëna mag ci l'islam mu ne jumaa julli jumaa ba beneen jumaa ñëw day faar bàkkaar yi nga def ci diggante bi bu ñaa la ci ñetti fan yu cay toptal comme ni ko yonentu waxee nee na nag julli jumaa ci ki nga xam ne faqiir la wala miskin la mu ngi tollook ak màkk xoolal yow mi joxe trois millions dem màkk aji man miskin bi toog fii mënuma dem màkk ma fonk julli jumaa julli jumaa googu daf may jural yool bu tolloog ki dem màkk وهي آه، في حق الفقراء والمساكين بمنزلة حج البيت الله الحرام كون كو بغا اج ماك تا امو خالص دما جولي جمعه واي بو جولي جمعه رك مونغي ملي دم ماكا دنگ لول لا مشي ابراهيم فال دون ما فاتل جزاك الله خيرا كون موكي جولي ني موي غور موي جيجين سما بوب لاي كومانسي ماغي نياخ سما بوب دي لين نياخ santaane yàlla santaane ci jullit juma yonent bi fedd leen ñu ko nañ ko fonk góor góorgóorlu ci buñ ko sàgganee ak lépp lu ñu yàlla sant yonent bi digal ñu ko ñaaxuñu ci nañ ci góorgóorlu lépp lu ñu tere ñu moytu ko dund àddina bi bum ñu nott ba yóbbuñu ci loo xam ne dañuy jural musiba ak balaa ak nattu ëllëg yowmal qiyaama ndax nattu ragu dugg safara yan nañu ci yàlla musal yal na buñ ko gis yal na buñ ca dugg yal na buñ am mbokk mu ca dugg addina bii xéewal yi fi nekk xéewal yi dañ la day jeex boo ko méngalee xéewal ya nekk aljana lu tuuti la mu ngi mel ni nga jël puso rek dugal ko ci géej génnee xéewal yi nekk ci àddina bii noonu la tolloo xéewal ya nekk ca aljana te aljana la nekk ku deew doo ca jot yàlla tabaaraka wa mu ngi ñuy ñaax ñu dundal jumaa ñu dundal jàkk dundal jumaa nag du tabax ko comme ni nga ko waxee sànq ci ki doon présenté conférence bi muy Baaba Guèye julli jumaa du tabax ko mu rafet nga peinture ko lal fay sa jaada ki moket ki nangam nangam monté ay ventilo ñuy upp wala nga taa ay kilim ñuy upp déedéet kese dundal jàkk mooy bi nga ko tabaxee nga fay teew dafa jàmm yàlla tabaraka wa taala wa anna al lillahi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 ñu koy dundal mooy ñan man amana billahi ñi gëm yàlla ñooy dundal néegi yàlla yi ñi gëm yàlla kon lépp ci ngëm yàlla lay déparé ñi gëm yàlla gëm bés penc gëm ne am na beneen bés boo xam ne danañ taxaw ci kanam borom bi tabaraka taala mu fay jëf yi wa aqama salaa di taxawal julli gëm yàlla te doo taxawal julli déedéet déedéet ngëm yàlla la koy feeñal xam nga bi ñuy wax lan mooy al iman ci arab لأن ما وقر في القلب وصدقه العمل نم يا الله مايلان لقلب فس دفا توك تي قلب قلب نانغو كو فاسكو واي ليكوي دغال نك موي جولي جيف تيري موي دغال نغم يالا موتا مو نوا اقام الصلاه تخول جولي وات الزكاه جوخي اسكا جوليك اسكا دانيو لنكلو دائما ولم يخش الا الله nga xam ne ragaloo dara nag lu dul yàlla rek na nga ragal lépp looy def yàlla tax moo tax ngay def laa taxaafu lawmata laa'imin doo ragal ku lay yedd yàlla rek moo la tax a jóg doo ragal dara lu dul rek nga ragal mu ne nag amaan na nag ñooñu nag ñooy ñi ci njub ak yàlla gi bañ tuddeelee al muhtadina muy ñu jub teg seen tànk ci siraatal mustaqim nga xam ne heure bu ñuy jàng fatiha ci julli gu nekk moo xam farata la wala sunna la danañ wax ne ihdina siraatal mustaqim ban yoon mu ne siraatal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin yoon boobu ña ca nekk ñoo tudd almuhtadina yonent bi salaatu wasalaam wax ñu ne bu ngeen gisee benn waay buy baagante diggante këram jàkka ja diggante këram ak jàkka ja seedeel leen ko ne ku gëm yàlla la gis nga julli julli kenn waru ko defee sa néeg te amoo benn ngànt déedéet yaakaar naa imam mali la wala imam Shafii xadis bi yonent di wax ne la salaata li jaaril masjid illa fil masjid Malik la de imam Malik la salaata li jaaril masjid illa fil masjid am na sax ñuy jëm xadis bi na wérul yonent def ne waa jooju nga xam ne dafa dëkk ci pegg jàkka ji di julee këram amul julli amul julli ci beneen xadis ñu ne yonentu wax ne julli ca jàkka ja ca mbooloo ma mu ngi gënee julli yow dong ca marché ba wala sa ñu ne ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar wala ñaar fukki daraja ak juróom mu ne ca boobu la soog a xam ne ah kon kon julli ci sa kër sax ndeke dana mën a wér waaye moom dafa gëmu ne julli sa kër du wér. suñu bopp avant tout ndax kat. ñun li ñu yàlla wax ci alquran laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana rasulullahi nag mooy yonent yàlla muhammad aleyhi salaatu wasalaam yonent mission bi mu indi woon daf ko fi bàyyi am ñu ko donn képp ku donn ci mission boobu rek uswa nga nga war a nekk laa wax de uswa xasana njaboot gi mën a roy ci yow waaye boo nekk royukaay bu rafet sa doom du mën a roy ci yow yow yaa ca war a jiitu di def muy jis ngay wax muy dégg mu roy la jabar ji roy la ngeen ànd jaamu yàlla dund ci njëkk ak teraanga bu ëllëgee yowmal qiyaama bés ba yàlla naan waqifuhum innahum mas'uluna yow doo ca bokk nga mucc ca fekk yow la la waroon xaq yi nga séqoon ak sa doom defal nga ko juróomi xaq la defal nga ko yépp waaye yow doo jaamu yàlla ba ne doom ji jullil mu a ah yi ñoo gën a nekk kàccoor fii ni di sant rey nit ñeeg julli leen te moom du julli bàyyi leen carte te paa baa ngi carte bàyyi leen ni te paa baa ngi koy def kon loo wax du sotti kon nañ yar njaboot gi teg leen ci siraatul mustaqim jàngal leen julli jàngal leen bëgg yàlla jàngal leen lislaam bi nga xam ne ci lañ nekk l'islam diina xam-xam la ndax iqara moo ci njëkk a wàcc ci téere bi nga xam ne mooy dusóoru l'islam kon nañ ko xam ndax xam mooy tax nga mën a def lu baax taarifuuni qabla an taabuduuni xam mooy jiitu jaamu yàlla sogo mën a ñëw boo xamul la ngay jaamu doo ko teg cadre bu leer lii daal mooy li nga xam ne moom laa waajaloon ci waxtaan wi gàtt na wala gudd na li ci nekk ndëngate ñu ngi koy jéggalu li ci baax ñu ngi gërëm yàlla tabaraka wa taala mi ñu kàttana kàttanal ñu tàmbali ci début bi ba ci fee bi nii di jéggalu nag ci mbooloo mi nga xam ne ñu ngi toog di déglu mën na am dégg nañu lu leen neexut maa ngi ciy jéggalu euh, borom xam yaa ngi fi di ñaan lépp lu ci yenuwut maanaa wala lu ci nekk njuumte nañ ma ko corrigeel ndax kat wa fawqa kulli zi ilmin alim na alquran wax mën naa yàkkamti juum wala gàtt xam-xam bi tax ma wax lu waxut wala ma jaar foqa ne waruma foon a jaa maa ngi jégglu di gërëm yàlla tabaraka wa taala di sant ñëpp di sant ci encore sama mbokk mu baax mi Ibrahima fay di sama xarit di sama grand frère Cheikh Ahmed Tidiane Thiam maa ngi lay jottali ngantam sama mag faatu kodd moom yaram ba mooy yëngu fan yi yëpp moo ko teree mën a ñëw kon ñu ngi sant yàlla tabaraka wa taala encore di wax ne fii laa yemale woon waxtaan bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.